onze billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbooloo mi asalaamaaleykum oustaz ñu ngi lay ñaan nga def ñaan ñu tàmbali nee ñu jàng faatiha lixlaas falax ak naas bismillah yàlla na ko yàlla nangu mbooloo Assalamu asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di sant yàlla bu baax nag ngir daaw fii la ñu ñaan yàlla sunu borom may nañu teewaat fii muy tëj te burdu boole ci gàmm ngir judd yonent bi sallallahu alayhi mu mel nag amul benn guddi bu ëpp guddi yonent bi muy guddi googu la xam secret ci nekk dafa bari lépp lu ci waaye ñaan ka nga def ko ci buy fifteen wala muy dërëm so ko ci defee ren bu dewe ne nga am lu ko ëpp kooku lo ko ci benn guddi lulul yonent bi ci gam rek nga ko meuna am kon nak yalla min may nak ñun ñu bok ci xet wo ñew tok fi fas ko magal yal nañu ko yalla motel te yal nañu ko yalla nangul di gërëm sunu sëriñ muy El babakar Ndaw sëriñ nak tan, nga tan sëriñ bu la neex mu jox ba wasila di bi di sa wasila mën na it teg nekk ndongo mu jàngale alxuraan te loolu moo dox suñu diggante ak moom kon bu ñu dee sëriñ mooy ki nga xam ne am lu mu def ci sa bopp nga mën koo tari mën koo wane kon oustaz dama ne yaay suñu sëriñ yàlla yàlla loolu su sutura te yal yàlla yàggal suñu kanam suñu sag nga di gërëm it imaam Papa Laye Diène dafa am loo xam ne boo ko amee ci sa gox danga koy sant yàlla. mooy jumaay ndakaaru mooy grand mosquée bi gën a rëy ci senegal yàlla dogal na moom balaa imaama xutba lépp lu ñu fay wax moo koy firi ña ngay dendal di toog te xamuñu ko dañu koy jëw ngir set gi nga xam ne ànd na ci ak sell gi nga xam ak dëggu gi nga xam ne noonu la koy firee yow mi dëkk moom nag dangay am fierté ak xol bu sedd loolu moo dox suñu diggante ak moom kon ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla dàqal seytaane bàyyi laay yàlla yàlla may lu gudd fan dolli sa wér dolli sa sutura nga yàgg taxawe lii dem ba ci sunuy sëtaat toog di ko def penc mii nag chance la ñu am bu ngeen déggee fan yi ci télévision bi may wax ci centenaire u Médina ndax nee naa ne bi ngeen wax naa Seydi Hadji Malick dafa ñëw di tuddee Medina bi jële ko ci turu Tilleen tuddee ko Medinatu war wax naa ko ci télévision bi ne kaay Ousmane Dieng la woon dégg nga ko parce que fii la ci rue 11 Blaise Diagne kon loolu sunu sax la jour ne cheikh yi ñuy def fii ci grande mosquée bii toujours sëñ Abdou Al wax ne ñi ngi ko njëkkee def ci kaay Ousmane Dieng ñu amoon it doomu Alaaji Malick kaay Ousmane Dieng fii kon yaakaar naa ne. lii nga taxawee dafet loo xam ne lu rafet la ci Sénégal lii ñuy wax ci collecteur li bu di ndakaaru ku ne xam na ne kaay Ousmane ngeen desu ci gannaaw loolu nag suñu sag la ak ñaanam ak ñi fi nekkoon kon loolu yàlla na gën a yàgg yàlla na gën a sax lii yàlla na gën a yàgg yàlla gën a sax di gërëmit ki nga xam ne mooy sunu sedd penc muy Ibrahima jéen ci yarom ci teeyam ci dalam waaye nag ci taxawaayam ci biir ndakaaru ndax wax na ne kii di rek muy alsaan nga xam ne moom la ñu def muy chef de quartier kii di rek muy maam Ousmane di secrétaire général comité Lébu di porte parole am am naa yaakaar ne am nga staff boo xam ne kenn jéppiwu leen ci ndakaaru lu ñu war a taxawee ci ndakaaru taxawe nañ ko ci ndakaaru commission religieuse ñu jël ko denk ko papa lay jël mu yor ko lu mu war a taxaw ci dakar taxaw ci diine ji taxawé na ko xawma fu ñu jame waaye bo kenn du ci jam sa jabot kon ibrahima yal na la yalla jàppale bàyyi laag sarka yi penki mi dal muy goor du jigen ak ku ci tante bi lo fi indi ci aajo wala jangoro yalla nako yalla fajal di gërëm xale yi ni ngeen di def dal ni la waxon naka at bu jot ma wax ko xam ngeen man sama serigne yalla daf ko natou dafa dëgër dañ ko tuddé allemand té du allemand néna tuddé nañ ma allemand tuddé nañ ma tàng xol waye do gis kuma xolol do gis kuma xéxal waye la li nit ñi bëgg ma waxal leen ko duma ko wax li ñu bëgg ma def ko duma ko def moy fen duma ma ko def muy sëñ bay masour yeen ñi nak yeen yeew yéew bay masour dika wayal dika wayal ba nga ji genn kër job si te loolu yaakaar naa ne ñaan googu mën na leen a topp ci kaw nii ngeen continuer mel nii am na folklore yoo xam ne ak xumbal yoo xam ne bu leen ci génn gis ngir yàlla bu leen gannaaw bu leen bu leen dem gannaaw grand théâtre Sorano bu leen fa dem yem leen ci tàntu yónnent bi fii la barke bi ne dañu naan dañuy moderniser moderniser boobu d' accord ma ci bii laa d' accord nañ ko def ci gox yi. oustaz nag am naa ay question yoo xam ne bëgg naa nga wax ci nonte nag moom Papa am na thème bu mu war a développé dafa am loo xam ne Serigne Lamine jóob yàlla na ko yàlla yërëm moo ma woo taal ma ci otoom ñu ànd dem seeti rawaan mbay ñu toog mu ne dafa bëgg a délégation bu ñu ko tànnal ñu dem seeti Serigne Abdou Al Amin pour waxtaan ak njaboot gi ngir ñetti mbir yu ko naqari benn bi. mooy tant yi nga xam dañ koy def ngir yonent bi te am ay jigéen ñoo xam dañu nekk ci biir tànt bi te duñu muur seen bopp dañuy coiffé bu mu rafet toog te teewul toujours ñu gis ko ci télévision ba sëriñ bi day toog di firi waaye loolu du ci wax loolu am na fi walla amu fi muy benn beneen bi ci des soo demee ci rob yi jigéen ñi dañuy toog nii góor ñi toog nii bañ na ko ba hôpital léegi am na palaasu jigéen am na palaasu góor te dañ ne ji fuñuy dencé fuñu fuñu robé jigen waru fa dem te légui mi ngi bëgg bari bi ci des muy ñettel bi moy seet gi xew ci réew mi da ngay taal ci télévision ma woté man la Samba Camara fi la dëkk nga commencé maa wax ma gëm ko ben sutura amatul problème bo am sa jëkër ma sa dom ma sa goro ma sa nday di nga téléphone wax ko di laaj pour ñu waxal la xalaat te kat ñoo ñëpp nak dañu ne ay jullit lañ ci ci ji lañu bok bokk loolu oustaz ma ngi lay ñaan lo ci mën lu mu gatt gatt rek nga may ñu ci tuuti benen bi ci dess nak gërëm jigen ñi sant leen njëkkee ko nak suñu mag gi muy ndey sofi ak i magam yalla yalla fay la parce que penc mi muy pencukaay Ousmane Diène ni ma ko waxe ni ñu valable ci ay goor non lañu valable ci ay jigen téye ngeen koñ bi téye rafet. ndax ñi ngi leen di suivre mbootaay yi ngeen sos natt yi ngeen sos GIE yi ngeen sos benn bu ci nekk dangeen ko teg ci yoon jël alsaan mii di chef de quartier teg ci seen wet yow nga jiite leen li tax nga mën leen a jiite mën a dox nag sa sell ak sa dëggu sama jabar ci la bokk dinaay laajte sell nga dëggu nga ci li ngay def parce que mbooloo li koy tas mooy dajale mbooloo jigéen te koo wet jëw moroomam waye gor gor nga ba lolou defaloo ko loo wax deug la te lo wax day leer ndey su yalla yàlla na yag yàgg sunu kanam yàgg mboolem ñu ko bokk ñep ak jigéenu kay Ousmane Dieng ñep mbolam jigéen ñu fi tew nak li ngeen tew kenn mënul tew lu ëpp li kenn mënul dem ci lu ëpp li kon nak lay wi gatt na lan la muy magal guddu yonent bi yalla nañu yalla fay ci barke yonent bi ñun ñëpp sunu jigéen namoon nañ ko muy aram ñi xamna li mom lii nga ko trop yalla mo la ci bolé yàlla yàlla doon sa sutura defal ko sa borom kër ba nga delluwaat ak jàmm salaam léegi nag kàddu gi dañu wax ne dañ koy njëkk jox suñu délégué de quartier Alsane Diène dama lay expliquer ni ñu ko bindee rek moom la wax ne mooy dalal gan yi Alsane Diène déchargé wu ñoo xam ne ëllëg dañuy liggéeyi te suba àjjuma lay doon am ñoo xam ne dañu war a waaj pour dem dem dem dem ci gàmmu yi kon imam papa yàlla yàlla jàppale la dolli sutura dolli jàmm kon nag kàddu alsaan boole na ko jox ko maam Ousmane kenn mënu ci dara chef de quartier nag xam nga nag yow maam Ousmane yaay secrétaire culture Lébu porte parole nga ne ci famille bi mais chef de quartier moo nu chef parce que moo fi président de la République comme dafa joxe ndigal nag ndigal gi mooy defal rek Ousmane kaay jël kàddu wasalaatu wasalaam wa ala ya rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi asalaamaaleykum Li moy faf ndax man bima ma dama yéxé a ñëw ndax ma nga leen koy expliquer suñu borom bi daf ma natto incha allah suba ma wara ubbi ben atelier té communication ba ma war a def parewul wante xol dafa mën lu bari ci doomu aadama xol bi moo mënul muñ ma toog di def liggéey boobu tu may yegg si fii mané won kon dama ñew barkelu rek dal di delu wat bima ñewé nak ah dafa melni jigéen ni ak goor ñek ñep dañu wax né dama wara tok mané kon na tok tuti ñu ubbi après ma ñaan tago dem jema yeggali liggéey bi ndax bala bërsat ma mëna yeggali inshallah ah wante comme niko ki waxe samba kamara waxe alsan mom da fay décharger rek mais bi muy décharger mënu na décharger ci kenen ko xamné ki vraiment wax deug yalla mu ngi fii sol grand boobu bu rafet lool macha allah te waa ministère ñoom nee nañ sama mag la sax muy As Dieng wante moom ak Ibrahima dañ ma complot bëgg ma wax kon mbokk yi asalaamualeykum ma waxaat ko ginnaaw ba mu waxee loolu ba pare ma war a jéem a nag dugg léegi tuuti ci biir gàmm gi. gàmm gi nag dugg ci dafa jafe ndax Samba Camara moom macha allah xam naa euh, oustaz Ndaw daf ko beral àlluwa ndax dafa naan moom. bàyyi laay la jox mbir yi wante mom su ubbe mbir mi rek ah nga xamne nak serigne mo wax ndax li mu fi wax ni bari na serigne ñu ko wax te waxuñu ko kon nak mom su fekke ni serigne bobu mom wax nako dafa melni ah baxna de man day serigne yoy bok na ci yima tan kon ñu ngi sant yalla bu baax ni Samba Kamara gërëm yëpp ñu ngi leen di gërëm duñ delu wat ndax waxtu wi jall na ba pare di kontaan tamit ci li Samba fatali ndax am na loo xam ne lii suñ ko waxul feneen tamit ñun ñii war nañ ko di wax ndax sànq damay xool benn élément ci biir tele bi suñu borom bi dogal na nag xooluma ko bu baax a baax a baax wante dafa man nii gis naa ñu ci seede jaar-jaaru suñu sëriñ bu tedd bi Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu te ba ñu tudd jaar-jaaram am na yu ñu wax yu rafet lool wante am na yu rafet lool tamit yu ñu fàtte Samba loolu bëgg nañu nga dimbali ñu ci ndax ñi di ko fàttali ndax kenn mënul wax jaar-jaaru sëriñ bu mel noonu te too tudd sëriñ Mansour sëriñ Mansour si sëriñ Mansour si di waajooru sa sëriñ sëriñ Bay Mansour te kooku suñu borom bi dafa dogal mu nekkoon fii ci biir kër gi yore fi daara ju mag a mag a mag a mag suñu borom bi dogal tamit mu am fi soxna suñuy wax ajaaru xëy jéen ñu mel noonu ci élément bi war nañ ko ci wane ci bu RTS aha RTS voilà waaw man bu RTS laa seetaan bu RTS laa setaan kon nag jërëjëf sàmba wante ñun war nañu fexe ba RTS tamit ñu def fa loolu wax fa loolu ndax kër gi loolu moo taxoon kër gi nekk daara te daara jooju macha allah moom mooy dund ba léegi ndax bari na ay ñu nekk ci ndakaaru ñoo xam ne fii lañu nekkoon bu njëkk ba am na ñu bari ñoo xam ne seen tur siiw na léegi ci biir Sénégal te fii lañ nekkoon waaw fii la départ bi waaw duma ci tudd turu kenn nag wante am naa droit tudd ci suñu sëriñ Maodo si Maodo Sy nga xam ne fii la nekkoon ci daara ji sam papa Cheikh Ndiaye maa béy yore ko moom ak papa Tall di sëtu sama maam Seydou Nourou Tall ñooñu ñun ñi mën nañ leen tudd wante am na ñeneen ñu bari macha allah ñoo xam ne mën nañ leen tudd te nit ñu yaakaar ne sax mënuñu woon mësuñu woon jaar fii te jaar nañ fii kon nag ñu sant yàlla bu baax a baax doon di ñaanal tamit kilifa yi. ndax am na luñ fi defoon ci weer yële paase alsan nuñ ko tudde woon dañ ne woon dañuy ñaanal mag ñi ñu wax ne mag ñi ñaanal nañu seen bopp sax wante dafa di suñu warugar ñuy fàttaliku mag ñooñu si ñaan googu ñu ñaanal seen bopp ñun ñu di ci fàttaliku di leen ñaanal te xam ne ñaan boobu macha allah incha allahu si ñun lay dellu si waat ndax ku am ñaan ba pare soo ko ñaaneelee c'est bon nga jàpp ne yow sa bopp nga ñaanal ndax ñaan boobu dafay dem dellusiwaat encore ci yow kon mag ñi ñu dolli leen ñaanal leen bu baax a baax a baax a ah, ñi nga xam ne ñii tamit macha allah bi mag ñi wéyee yal na yàlla sa leer te xare leen aljana ñoom ñoo yore taal bi ba nga xam ne bii taal bi fayul amel nañ leen cant amel nañ leen gërëm toujours damay faral di wax ne ñun suñu borom subhanahu wa taala daf ñu beral loxo Ibrahima man ak yow ak ñi ñi mag ak ñi maaseeg ñun suñu borom daf ñu beral loxo lu tax lépp loo xam ne lii dañ ko war a def suñu borom bi dafa dogal ñu am ay rakk yu ñu koy defal waa ku am loolu looy wax alhamdulillahi rabbil alamin moo tax ñu mën a toog léegi ay fan di muñ pénc mi muñu ñu penc mi dañu xam ne nañu fa toogal mën na ñoo toogal su ko defee ñu bañ fee bari tànk tànk yoo xam ne yii dafay mën ni dañuy nemmeeku koo xam ne ki wóoluwuñu ko ñun dañu leen wóolu moo tax lépp loo leen di def suñu xel dafay sedd dafay sedd léeg-léeg nit ñëw wax man ne ma ah ñii de def nañ lii def nañ lii def nañ lii man alhamdulilahi rabil alamin waaye daal di ko xoliku xëccaat mbuba mi daal dina sama rakk la ba fan yéele dañu toog di waxtaan ci suñu jàkk ca yoof ñu ne ñoom dañuy def tam xarit foog naa wax naa ko sax alsaan biñ ko laata def man na ko suñu waa penc day fële nee nañ dañuy def affaire bi mais xam naa ne duñu mel ni suñu bos yàlla moom moo dogal loolu ñoom ñu dem bay tëkkale suñu bos ak seen bos ndax dañu gis alsaan muy expliquer si tale bi ñuy xamal ne ñun ci kaay Ousmane Diène suñu xarit dañ koy subventionné ci liñ koy subventionné ñu ngi koy jëlee tamit ci li nga xam ne moom la mag ni liggéey ndax doon naa ko fi wax keroog néna mag ni liggéey biñu ñu liggéey bàyyi fi ñun si la ñu jàpp ndax liggéey bobu tay ji xalé yaa ngi ko yor defar ko ba baax muy jur ay koppar koppar yoy diñu fajal ay soxla may leen ci koppar yoy nak ci lañu ñuy subventionné kon bu leen def erreur bu leen defee ne diñu jëlee benen subvention.

ah ma dem ñu laaj ma ko man it ma daal di koy wax foofu leeral ko ba mu leer kaay Ousmane Dieng gën fa màgg li nga xam ne bii Samba Camara moom la gën a bëgg ndax Samba Camara moom fu mu nekk moom kaay Ousmane Dieng ca kaw a kaw a kaw rek. kon nag ñu dolli sant yàlla sant ñëpp Samba wax na ko guddi na te wax dëgg yàlla waxtaan bi tey dañ ci am yaakaar yu bari su ko defee allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. sunu teewaay fii.